Syntec di benn entreprise bu xarañ ci wàllu GPS dégguma di GPS dernière génération 2.0 IP 68 résistant à l'eau maanaam bu tooyee du def dara yamuñu fa GPS bi buñ la ko mëntalee fi nga toog dara du la ëpp ci sa oto wala sa moto ndax dangay xam fu mu nekk sa xel daldi daal bu neexee nga fay ko poursuivre ko en temps réel blocage à distance alerte ak accès vitesse alerte par message lépp ci sa téléphone tablette wala ordinateur donc looy xaar pour sécuriser say auto wala say moto ku ci soxla wooteel gaaw ci 77 881 34 84 adresse ñu ngi nekk fële ci Liberté 6 ak seen tech innovation seen jaaxle jeex na man moom ñoom rek lay topp. di leen nuyu baax a baax di leen ziar suñu bokk internet yu taayu làmb ngi toog ak tey làmbaloog pour nar a si xaar waxtaan ci combat bi taxaw Euh, sànq ñu ngi dox ci diggante Ama ak Franc naka la ko gisee la maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga maa ngi lay fay di la ziar bu baax di nuyu Sénégal gépp di wax salaamaaleykum salaamaaleykum monde entier waaw di nuyu ñëpp di masawu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jaam waaw di ñaanal Sëñ Saalu Ndiir waaw nii ma def nii moo ma ko joxoon ci tabaski gi te tey laa si doog def émission presque waaw di ko ñaanal lu mu mën ren yàlla na mënaat bu déwénee di ñaanal Sëñ Fallou Seck bu baax borom tapisserie Touba Xayra du ma ko taayee wax kooku sama xarit la sama mboq la sama lépp la sama père la sax léegi waaw pom du neew moom dégg na loolu mosul dégg sama peer la mais léegi sama peer la waaw moom sëñ Fallou seek laa wax sama waay la di gërëm ñëpp di gërëm góor gi si géej gi di gërëm waa Alba di gërëm sama waa koñ waaw di ziare ñëpp di wax ni lu bees neex na mais tey laa leen dégg dëgg na tey indi nga ca mais tey dama bëgg kat appi gépp xam ni làmb ngi fi waat parce que xaayaan ku dégg séeréer ñoom saa yu musaana déglu lu neex rek fii lañ koy dégloo nag si làmbalo tranquillement bu calcul jotee xaadim day ñëw ñëw teg machine calculer ko tey mbir a moo tax il faut ma ñëw carte appui wéef leen ko fi parce que ñoom xam nañ carte appui waaw kon tey déglu rek ma waxaat la loo xamante ni bu ñëwaatee carte appui day mel ni midi ak cinq sondal si ama franc wop wop wop ba ma koy wax lii xewul tey xew na loo si laaj ma décide la ko mais combat bu risque bu neex a ngi nii bu kenn ñemewul a xalaat. ama ak franc naa la xamal ñaar bis bu ma constat ba pare ñoom ñëpp sa la ñuy jaar parce que da teel a ñëw. mais soo leen bàyyi woon ñoom ñëpp duñ lap bu ma ñëwee moo leen fi fekkee duñ doy mais tey jii damay génn fenn rek ñu bëri génn fa. mais nag ku si calculer di nga juub parce que dama leen koy tënkal tey mais après kat appi day ñëwaat ma bis ko lu lu jeex parce que combat bi gis naa si lu garaaw. waaw si ñoom ñaar ah, franc mhm. lu bëgg ñu commencé. acca lu garaaw li mooy Ama jël na franc mais xoolul franc bu baax. waaw xaalis si. mais palmarèsu Ama romboon na sa waay daa retourné te bëri retourné gën a garaaw bëri yéeg pour mu bàyyi si xel parce que Ama bu nee jël na Franc rek muy favori te Ama taxaw tele ne Franc la soxla moo jàmb daqaar ji paccal waaw amateur joxu ko lamb joxu ko moom moo laaj ne jox leen ma waaw waaye xaayaan ko dégg séeréer yaa ngi may dégg de falaay ñëwee moo jàmb daqaaram paccal li ngoom riij kaaneem bu koy naan kenn du ko téye na gaa yëpp déglu rek ñu wax leen ci code ñu teg sport bi ci sport mais Ama su bëggee daan Franc dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg teint bi mu yor ak foo koof bi daanu Franc Ama entraîné na des na lu bëri ndax Ama boo gisee ni mu xeesee nga xam ne des na lu bëri te Ama moom xam na ni des na lu bëri bu bëggee daan Franc bu rootiwut bu ñëwee Franc dina ko daan Pikine gépp bàyyi ko parce que Franc daa pare Franc arène nationale bu ma juumagul combat yi mu fa bëree yëpp deful ay seconde deful ay moom bi mu ñëwee si Gris Bordeaux par avertissement la ko daan te ñëpp xalaatuñu woon loolu te daan Gris par avertissement du Franc dëgg neexul mais combat dina am moom mbër mi dina àgg foo xamante ni bu daanee disqualifié sax da ngay bëgg parce que yaakaaroon daanu ko parce que si defarul la toll woon lu mu daanee da ngay jël mais bokkut ak combat bi mu jëm xaaju musiba la doon jooy musiba ancee ngi Franc bu doon jour la benn jour gën ko see nekk topp ni tafaatin taxawoon noonu la Franc taxawee dëgg neexul ndax kër goo ko jëmale ñu bañ écrit bu ko am xam ne am nga combat ndax li muy def yéexut te ñeme na te bu jàppee kale sur kale lay def boo weddee nga laaj ba mbër jee xool na ko côté bii ndekete Franc ngi fii lu xaati ngoon te fii la jaare ko bëre yooyu nag bokkut ak bëre yi Ama doon bëre ndax Franc saa yoo jëlee xeex bi mu jël bëre bi te looy wax bu mu njëkk laa jël bëre bi doo bëre te Ama na xel loolu te combat bi risque la de. risque la si ama 100 pour cent ndax moom moo jël engagement mais nag bu ko daanee dina toj làmb ji moo tax ama daa war a dem ko ci bu baax entraîné bu baax teg lu leer indi ko waa Pikine ni ba ni la Gaye def contre contre sawaay ama la warate yoon nag indi ten bu baax doomu doo bu baax biir bu baax tànk yu baax doole ju piir man koo tenir wureeg moom daan ko wala mu duma ko daan ko bu ko defut du ko daan ah, duma franc non su su su fekkee ne xeex bi calculé wu ko jàngiwu ko munu koo munu koo duma parce que Franc du la xaar ngay xeex Franc nu ngun a encaissé de mais bu la jàppee day bëre mais ku fekkoon ne Franc day taxaw pour nu xeex ak moom Ama mun na ko duma parce que Ama ko gën a capable bu ko yettee benn rek pare mais sa du ko fa xaar ndax sa xam na ni intérêt bëre la fu ma ko jàpp lay xalaat mais Ama bu fattee ba du ko jàpp day mën a bëree ak moom tey su ma doon yóbbu Ama dama ko naan taxawal xaar ko Ama musul taxaw mais bis bu taxawee nga gis bëri. taxaw xar ñëw jël si ko. waaw mooy yoon franc mënul too taxaw te ama franc ñëw moo ko war a arrangé. bu xeex bu baax dëgg bu ñëwee bu ko rafaalee day taxaw far force parce que ponkal du demee si si si si ponkal sans toj te Franc mënul toj te ama du toj moo tax bu sooboo intérêt ama la mais am na nu muy demee bu ko booy bi ñemee ama ku fararu nag moom di nga dar sa gémmiñ xale bi taxaw na de. xoolal ku dem bañ naa la moo Balla Gaye bu wàccee si sa waay rek ñàkk pexe la mais Franc dafa ubbil portoon na mbër yëpp leader bu bañ a daanu bu jël Franc. mais dama gis Franc bi mu daanee Bombardier mënoon mënoon na jox leen ma Ama jox leen ma Boy Niang mais dafa dëb laaj Eumeu Sène est-ce que loolu nekkutoon pour am mu gën a am euh, Ama ak Boy Niang facilement. waaw loolu yëfi professionnel la xaadim xaadim boo bëggee boo bëggee jot xaadim dangay dem tooñ rakk ja boo ko tooñee ra buy jooyee xaadim na ko ko la dóor bu ko nee diw rek am nga ko. moo tax sax sa waay teelut laaj ñoom ama bu ko laajoon mun na wàccaat si suuf daa dem tey la laaj kële booy daw song ko na ko bala ngaa laaj kee laaj ñu waaw njëkkante buntu la ama kon kon franc li mu doon kàmb am na ko franc ama franc euh, ama bi mu bëree giri ba pare franc bi def na benn sorti ne ama li mu bëree giri ak forme bi mu yor ni du lii moomay daan mu mel ne kon teel na teel koo sas ci côté entraînement ci côté doon waaw moom it bu mu basé wu si loolu de xam nga wax naa ko léegi te wax laajo goo loolu nee la li mu indi contre Gris Bordeaux daan ko par avertissement yu demul si Franc entraîné bu wér péng ama bul nax say supporter continuer nga entraîné lu la ñàpp ginnaaw Balla Gaye kenn ëpp la supporter si àdduna ama Pikine yaa ko war a yëngal bu mu yëngu xoolal parcelle la la métti li la métti parcelle la amee woon kun yow war nga mën a confirmer si booy bi nii nga xamante ni kenn mosu koo laal parcelle daan pour amaat Modou parce que bu daanee mën naa amaat Modou Lo balaa tekki ñu biisaat ko te Ama nag fi mu jàpp fi la mais bu liggéeyee ba daan ko moom Modou kenn mënu koo tee am te Modou da koy may sens mais nag pour mu daan Franc waa koy bàyyi Franc nag waxoon na ni bu ma daanee si booy kenn bu daanee kii Eumeu Sène mënu koo bañ Balla Gaye mënu koo bañ keneen Modou Lo da dul bëre mais nag Ama nag bu daanee kii mën naa laali waat waa des arènes parce que ki fi gën a danger la daan Balla Gaye ngi nii daan na ki fi gën a danger Balla Gaye Ama Baldé bu ñu doon bëree nga xam ne combat nga mais liñ tul bëree moo tax ñu bokk ay adversaire saa yu laalee kee fii lay laal moo tax nag kii laal na laalaake combat bi moo tudd laal nga laalaake si ñoom ñaar ñëpp yow nag Franc mosoo am ku mel ne Ama Baldé. léegi Ama euh, dafa ñëw dugg Pikine fëgg porte porte waa Pikine bu buntu bu beekoo Ama moo taxaw ci buntu bi bu amee ba bu amee bàyyee mu jàll foofu lan moo lan moo nar a xewaat ama yaay buntu pikin boo ko boo ko fàttee buntu pikin ubbeeku na Franc bu duggee pikin basangam lay lalaat te Franc nag bu ma juumut pikin ku ko fa daan gisaguma ko de parcelle ak pikin parcelle ak pikin damaa yaakaar ne beneen booy mooy fuleeku fayul waa pikin mais su ama ñàkkee kenn du ko leen fayul. loolu. non Modou jeexal na fa ah toj na fédération bi bañ tasaat ko defar ko. Faran duggaat na Faran nee na day duggaat fédération Pikine la Modou loo tas ba mu tas tasar defaraat nañ ko ba mu ne ñàpp génn Ama mu delluwaat parcelle wëpp ku xam histoire lamb rek xam ne làmb ngi dox parce que ki jóge woon parcelle am lu ko naqari mu jaar Fass am fa benn victoire delluwaat parcelle am na lu mu bëgg boo ko xamee boo ko xamee laal na Faran mais laalul pour Faran moom it Faran laal na ah, laal na ah, ah, kii Ama Baldé mais Ama taxu koo jóg. ñoom ñaar ñu ne dañuy naxante ci biir combat bi ku daan da am koo laaj Ama bu daanee day dem ci seen tête de file muy Modou mais Franc bu daanee day dem ci seen tête de file muy muy muy Keer. bëri Ama ak bëri ak bëri Franc est-ce que est-ce que déggoon na ñoom ñaar. non non bokkul bokkul bokkul bokkul Franc côté lay bëree dalay lay xaaj waaw ci fi flanc yi lay bëree mais Ama si digg bi lay bëreel Ama balaa mën a bëree nit nit ki ñëw ba tolloog moom fii si dënn bi. nii ak nii nu mu la si bëgg a neex la lay def mais bis boo ko wetoo rek am naa problème waaw parce que moom dóoram day ngàdd te kuy wetu du dóore ngàdd nii la wara a mu jam moo waral mu def nii bu defee nii yow faar gi xoolal lii lépp boo ko defee bërikat day am yoon te franc bis boo ko mayee tarfat ak ay ni mun a ceex téye ànd ak te xelam wëpp ku faral na Ama Baldé di nga dar sa gémmiñ te Ama nag bu defee rek xeex bi mu aw yoon mën na sonal franc si xeex est-ce war def est-ce façon ngeen bi mu ngeen bu ko Franc jàppee foofu pour mu génn fa dina yomb. lu mu amul woon si bëre dootu ko amaat. koofu bëre rek la mën a am mais jàngiwaat bëre moom si Franc ëpp na bala nga mokkal Franc jéem na Franc nag xam na li muy yokk moom pour mën a tenir Ama rek lay yokk te Franc fi ne nii pour moom moo gën a pare bu ñu woon noonu di entraînement combat bi bu Franc teggiwul Ama teggiwul du ko gën a jàpp ndax Franc daa jàpp daa pare day doole. Ama jóge ci blessure di merci kuy préparé kuy dolli bokkul Ama day liggéey ñaari kilos entraînement ñetti kilos yu mystique su ko defee du gagné combat bi mais nag Franc ku ko ñuy mystique mbër jàppagu ko gàllaaj ba nga xam ko mais nag laalagul mbër mu mag mu ngi doogal laal capital mais nag bu si waa bu si waa parcelle gépp jàppee waa Pikine gépp jàpp si xaarim di nga gis bëre bu neex stade bu gaaw fees li may ñaan kañ mooy nañ si dugal yoo xamante ni tamit. ay ñam la ko quoi bu ñu ko ragal nekkul Ama Baldé parce que sponsor yi ñëw boo si dugalee boo yu tàng jër journée bi day neex ku ne di ko si mën a jël même bu ñu jëlee Ama Baldé ba pare dinga mën a jël Lac ragos ah jëli keneen jëli keneen combat bi mën a neex ñoom ñëpp combat yooyu mooy tax géew bi mën a fees teel toog te promoteur bi du per mais bu ñëwee rek indi Ama Baldé rek ñu def échantillon bi Ama Baldé buñ paree kenn du toog mais bëre bi pour bëggee dagg bi kaaw. il faut nga dugg si boo yoo xamante ne boo bëggee seetaan seen combat il faut nga teel a dem que boo teelutoo dem day bëre mais bu dee Ama Baldé rek moo si nekk ñam kon yow mën nga toog ba yenn combat yi ngay doog a ñëw kon promoteur bi day jaaxle moo tax combat boo koy tëgg boo tëggee bu mag bu seer da ngay si ndaw yi boo yoo xamante ni ñëpp leen dégg boo yooyu lay raxasal indil la ñooy teel a bëre ba pare toog xaar parce que dañuy bëgg seetaan combat bu mag boo bëggee bis bu mag. bëgg mu seer danga nga fay dugal mbër yu seer loo dagg bee bi ñu jël ko te defar yaatal gars yi parce que ñu ngi nii commencé si waxtaan di jaay koset yi te bu bis baa bu amul accréditement doo dugg nañ bàyyi yooyu parce que ku fi tëgg sa combat ñu bàyyi la ko fi kenn du la dégg kon gars yi liy wax ba gars yi dégg leen di nga leen war a sóoraale parce que médias yi si lañ bokk waaw benn mbis nag am na si mooy mooy mooy mooy combat yi taxaw nii nii nii nii di taxawandoo nii nii nañ xool ni bu baax niñ koy séddale parce que tamit Aziz Ndiaye jàmbaar la fii koo fi xañ avance mu ne noonam nga mais am na yeneen mbër yoo xamante ne mën ngaa jël ñaari avance yi mbëri di tegale nga jël benn avance bi liggéey si yeneen mbëri mën nga si gagné loo xamante ni da delloowaat kële avance te ko yem mais xoolal imaginer kon kon di la ngi si biir bu ñu waxul mais nit mënul jëlandoo ñetti avance yeneen moroom yi go gën a tàng téeméeri junni yoon taxaw ne amuñu avance noo loolu du liggéey ku koy conseiller mbërit du liggéey wala ma xam ne di la ngi si waxal ni maa jël ñetti ko am avance muy sa sa heure boo banquee dem woo ko mu jox la dara moo si ne mooy jëlandoo ñetti avance jox ko benn booy muy xaar bëre bi di xaar bëre bi non loolu du liggéey bu la yeneen bëri gisee waaw Franc day bëree li korokoro day bëree tànk day bëree loxo parce que mbapat la génne amul looy bëre lu ko jaaxal ma ne la ñu teg si Franc xaalis muy ëpp toole ñu teg si ba Baldé xaalis du neex a dégg est-ce que dégg nga ma mais Ama mu def retour si signature bi bu ñu jàkkaarloo rek di nga xam ne Ama pare na wala parewul mais incidence yi nii nii nii si gën a nekk buñ ko biisoon suba suba suba suba waa Pikine yëpp dar seen gémmeñ kon Ama na dem ne lu buur koŋ ñëw tegal ko Franc ale boo gis am na retour te Pikine nag mën nañ loolu de buñ booloo Franc jaaxalu leen te Ama xewle te Amaay borom Pikine combat boobu nag parcelle boo fa génnee Modou ba pare Franc rekk nga mën a wax ah Modou Lo commissaire bi. mais Franc ay commandant ba Pikine nag ëmmaay commissaire ba mais amaay commandant ba ñaari commandant yi lañ boole. mais Franc jox na koy avant combat bi taxaw. non seconde la ko may ne. mën na ko ne osé na ko loolu damay neex sax amul ragal wëpp papa wëpp wëpp fii làmb ji amul neexal. ñoom ñëppay liggéey xoolal boo tuddee xaalis bi rek ku fi nekkul bëriwul sax da ngay xam ne loolu xaalis la de moo tax amul neexal franc bu ko may dara nee ko deux secondes yow boo xoolee ba franc ne la deux la fi say fan sa kon war na ci xaar ku ko song que ama dafa mel ni wax na ko feebaram nee na ko euh, lim bëre girib ko tekki 30 secondes la koy may dafa des. lim jot a gis Ama Baldé la xam ne ama dara newu fi loolu sportif a koy xam nag. waaw ama dara new fi neexut a dégg si ku faral ama ak ku bëgg ama boo ko waxee dara new fi day jaaxle mais ama li mu yor daanu faran guddi yi ñu tool xawma nag lu muy rootaat parce que combat déwén la na gën a rootaat lu muy root lu mu root na ko xeeb parce que piki na soxla te ama ñeneen na ko faral ñoo xamante ni ñu ba fii ama moo njëkk a siiw faraa téeméeri junni yoon kon bu faraa demee ba tollook moom ay supporteurs na ama xoolaat fasam dëgg daanaka li dal Balla Gaye ko baala da see ne rek gën a weex dung mais xaaju musiba la Balla yor mais Ama musiba ance la yor parce que xam la ma tax musiba ance la yor mooy franc mi mu am moo gën a nekk top bàyyi nga xel lool franc mooy taamu ñi mu war a bëreel guddi yi mu toll xoolal ñiñ ko booleel ñëpp amut ak ñoom deux minutes kon bu nekkee deux secondes dama koy gëm parce que Balla bi muy bi muy rente laay fa ay une minute la doon maye. te du àgg une minute mu daal la kon Franc bu génnee ne ma ay deux secondes dama koy gën a bëgg xam ne mi ngi dekkal làmb. kan moo ci daan ñu ne ñu ne ah, def na def na exploit. ama ok bu Ama daanee ñu ne moo ko mën mais bu Franc daanee toj làmb ji saaga jëm fuñ ko foogewul Ama nag mooy fogori mais taxul mu daan parce que xaaju musiba la doon jooy mais Franc du ñeexu ñebe kenn ndax booy bi day entraîné. njaago bu dégg olof la boo waxee olof mu lay tontu si olof kon ko war nga xam ne mënoo koo nax si olof ndax nit nag nit dañ koy nangul li mu doon yàlla moo ko def mu nekk si biir njaago yi mais sampion la parce que ay olof rek lay bëreel te olof yee moom bëre bi kon lu mu si am da koo war a da ko mérito te xoolal ba mu dalee bëre ba léegi déggoo àccam te gàllaaji du yeex te mooy njëkk a pare si biir géew bi. ku ci gën a am bis. ku ci. gën a am non ah boo kee moo gën a am bis. Ah, franc. mais ama ëpp xew waaw kay baay dangaa laaj pour ñu toj ama min na bis ah, Franc mi ngi doog am capitan waaw moo tax ma ne ko moom moo am bis mais kële moo amu xew ndax kan moo la daan ki musta am bis moo la daan te yow miin nga bis foofay wax ja kii daa am xew kii am bis kii nag bu miinee bis ak ki miin xew bërëb bi foo jaar mu neex te yàgg am ardo am tëtëf tëtëf tëf tëf tëf bu ama entraîné normal bëre bu neex lay doon ndax ama ju neexu ñebe fit waa rëy bu ama amee li mu war a am te xoolal da nga fay gis spectacle surtout si gis cosaan njaago bi mooy dem bay tuuse cosaan parce que cosaan rek la mën parce que si cosaan la génne fa la jàngee bëre mais ama ay chorégraphe lay génne parce que si arène la génne mais Ama xeex bu mu xeex ak Gris mu mel ne xeex bi am na amélioration est ce que boo ko xeex ak Franc du indil xeex problème Franc ci xeex bi. Ama benn loxoom bu jógee rek dalul ñàkk na combat bi sànni bal rek mooy ñàkk na combat bi te booy bi mi ngay Franc mi ngay remise yoo xamante ni ensonnement la da ngay teg rek mu teg la ko laaja soq demal nga seetaan combat am ak soq soq daa mujj mel ni dóoratul mais nag soq du Franc soq du Ama te Ama boroom ginnaaw la combat bi bu ma juumut bu ama daanee di nga ne xàmmeetuma Franc non ama bëre la war daane si lu ma juum mais bu dóoree mu daanu te dóor mu daanu rek fa mën a am mu gaaw mais lu mu bëree Franc xam na ko guddi yi ñu nekk nii nii bu ma doon teg si ama mooy favori mais si Franc laay teg. tool xam nga lu tax ma wax loolu. Franc moo gën a compétir. Ama nekkagul en règlement Ama Balde ma ñuy wax Ama si jom la nekk waaw si jom ñi me géew waga osé si la toll ni mais si moom li mu yor lañ koy soxlaa Franc li mu yor moo ko moom nu ko neex la siy def amul dara lu si nekk triché rat la def waaw kooku foo koy jaar kooku bu ñemee foo koy jaar Ama 130 kilos bu ko posé ñàkk nag combat bi cent lu romb rek bu ko posé ñàkk na combat bi cent dix cent mu gérer combat am doole ba pare gérer combat mais fi ne nii ñoom waa Pikine bëgëree leen neex te bëgëri fayut ni ñàbbay fay xoola Balla Gaye ni mu daan toll tey mu ñëw sew ñëpp naan kii est-ce que dina ko tenir mais est-ce que bi ñu roofoo tenir na ko wala teniru ko mi ngi noonu Ama noonu la war a indi indi loo xamante ne naan yée Ama day xaru fekk doole jàng sa biir te comme ama giri dañu seetlu même indi na man euh, même euh, même si indi na poids mais dañu gis même premier contact yu njëkk yi deux minutes yu njëkk yi dañu gis mu commencé nooyi nooyi bu baax sax. waaw première souffle. war ko corriger avant bu jàkkaarloo franc. waaw mooy première souffle bi dañu te première souffle boo boo amul entraînement bu wóor day feeñ xoolal ni mu doon noxee mujj gi xoolal te takkaay biir yi ñuy takk ñoom ni muy joué day bëri mais xaaral ba Franc ñëw ba mu ngemb ngembul du romb ndigg li pour wan ne la kii yàgg naa ngemb. mu tànc ko moo tax xam na ngeemb lu muy jariñ xam nga koy ngeemb chaque jour di bëre ay bëre final bokkut ak koo xamante ni bu ngeemboo bëre bu assuré balaa ngeembu waat ay at lay doon franc ñaata yoon lay takk ngeembu dem di laale koo xamante ni bu ko daanee mu ñàkk xam nga daa bëri moo tax gis nga fi ngemb la yem day sentiré mais boo tegee fii sa ngemb ba mu jeex bu defee nii loxoom sax day jàpp loolu laaj léegi est-ce que amaa façon ngembam bi bëri nag mooy mooy bëri franc est-ce que du gën a yombal franc non bu takkee takk yu bëri gën a yombal franc ye xoolal lu diis boo koy jàpp te amoo jàppukaay day jafe jàpp mais bis boo amee jàppukaay lu diis li day yomba jàpp te ña waaw waaw kenn du ko jàng si bopp ñay yenu kenn du ko jàng si bopp ñay mu waaw yenu kenn du ko jàng si doomu ñay waaw bopp ñay mooy doomu ñay wax la déggin la laaj doomu ñay bis boo ko yenoo bis bu màggee doo ko yenuwaat waaw bopp nag moom yomb naa yenu waaye bopp ñay rek wax la mais déggin la laaj dana la ñeenu kenn du ko jàng si doomu ñay ndax lu mu gën a avancé di gën a ngande mooy franc léegi nag yanu la waa far la Pikine di jànge si parcelle yanu nañ teg fa ñu ngi demaat di yenu xaayaan ku dégg séeréer combat bi ku si teg sa xaalis di nga gañe de waaw ama ama bi toog ama parce que bu suñu dégg mu ñëw amaa bi fi Malick Niang nekkee sonaloon waa làmb moo jékki-jékki ne jox leen ma Malick Niang tey fii euh, Franc toll nii Malick Niang fa la tolloon ama laaj ko tey bu am bu amaat bu bu tollaatee foofu gisaat Franc fi Malick Niang tolloon mu laaj ko est-ce que mënuñu am xel mu dal ci moom. xoolal Ama bi mu daanee bu waxuloon Franc kenn du ko jëmale Franc am déet parce que ñoom yaakaaroon yërëmoon nañ si Ama si Franc ku ko fa jëmale rek pour yow da yaakaar Ama daanu wala bëggoo ko wala ay fansam ñaanal la moom moo génne ne jox leen ma Franc wax naa la ko commencement bi wax naa la ko commencement bi ne la moo jàmb daqaaram paccal ni moom moo tax bu entraîné jëwul dina rus. pour mu naxante si combat bi na teggi bakkan bi rey boppam si saal yi rey boppam si contact bu def ñàbb si saison bi première jàkkaarloo bu ne Dieng Franc xam ne changé na lu mu def da koy xeeb te bu yàggee da koy ruux Ama Baldé bu baaxee rek Franc ruux mais tant que Franc koy xool de xam ne baaxut bu ko Franc téye du ko awale yoon téye ko xool ko baaxut yombul si nit yi bëti nit ñi xamul sport mais ku xam sport boo xoolee Ama Baldé xam ne pareegut pour Franc mais nag préparé ji lay def mais bu pare pour lu indiwul lu doy bu ko Franc xoolee da koy taxawaat waxaat ko li mu ko waxoon lu ko gën a tuuti. merci Lamb. pom du neew salade du ñax mais kat appi bësal leen seen bouton ñëw li ma leen wax nii ñu ñëwaat ba Ama jàkkaarloo waat ak moom ngeen xool ba xam dina yokk teint bi mu ñuul wala du ñuul mais Ama fekk xeereerul waa Pikine mi ngi leen di naax. merci Lamb di la lu baax a baax di la ñaanal Franc nu jàmm di leen dig daja beneen yoon beneen invité ci waxtaanu Lamb.